non c'est dommage c'est dommage quand même bi ku nekk xam na ne métti na waaye gannaaw loolu asalaamaaleykum les gars maa ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen wax ne défaite démb bi métti trop képp kuy Sénégal rek métti na ndax euh, daa betti trop ñun ñëpp ku nekk si ñun yaakaaroon nga ne coupe bii ñun ñoo koy jëlaat muy suñ ñaareelu coupe mais gis nga li yàlla dogal li ñuy wax jàmm moom li mu bëgg rek la xam mais li yàlla yu dogal mënu si dara waaw. ak euh, beneen bi mu si doon dolli rek euh, damay dégg ay critiques yu bëri si ki nga xam ni kat euh, mooy Aliou Cissé na ma bëggoon ñëw si loolu ki nga xam ne mooy Aliou Cissé ñii dañ koy xas ñii di ko saaga mais loolu yëpp euh, c'est pas normal ndax euh, ki nga xam ne mooy Aliou Cissé bu ñu xoolee ku bële jàll rek euh, moom mooy premier entraîneur bi nga xam ne indi li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique te xam ne ne avant Aliou Cissé di jël li nga xam ne mooy équipe nationale bi kat boobu équipe nationale bi si difficulté yu mag a mag ci la équipe bi nekkoon depuis ak ba léegi nag mo def fi ay extraordinaire mën nañ ne buñ bëggee changer ki nga xam ne mooy Aliou mën nañ koo changer si njëkk te bañ yenn wax yu ñaaw yi wala yenn kii ndax Aliou Cissé équipe nationale beeg peuple Sénégal ñëpp ñoo ko war a delloo njukkal remercier ko si li nga xam ni que def na ko si équipe bi ak indil nañu ko. dont ne dañoo bëgg a caf ko wala ñu bëgg mos beneen plan am na neneen luñ ko mën a changé lu dul paake di ko saag wala di ko wax yenn wax yoo xam ni mooy loolu quand même lépp daal ñu teg ko si respect te xam ne Aliou Cissé jàmbar la ndax ay fi daan jël mooy loolu daaw ñu fi tegal benn résultat boo xam ne nii bu am solo la. ba tey gars yi di leen wax lii benn parenthèse bu ndaw laa doon def rek te sama xalaat la ko nekk nag am nga sa xalaat di gisee noonu la neexee am nga xam di leen wax gars yi yéen ñu abonné ku ngeen abonné di la jox dig daje ba ci beneen vidéo incha allah te fas naa ci yéen def li nga xam ni mooy vidéo nettali leen ki nga xam ne mooy histoire Aliou Cissé ak Aliou fu mu jógee équipe bi fu mu jëlee équipe nationale bi ak fan la indi équipe nationale ba ci beneen vidéo incha